bismillahi irrahmani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di ñëw ak yéen ci xaajub juróom ñaar fukk ak ñeent ci jataay bi nga xam ne dañu ci jéem a leeral ci wolof sunu kem kattan téerab minanul baqil qadim fii sirati cheikhil qadim cheikh mahamadul bachir bind ko ci dunduk sëriñ bi xaaj bi nu génn mi ngi yamoon ci fi sëriñ qaadi yi ma jaxate kale sànne bayit woowu mooy bayit bu jëkk ci xasida ko xoqal bu ka mu mel ne daa am lu doon nelaw ci moom ba xaw a yeewu qaadi yeeko ko nag mu dal di jub nag fudd am na loo xam ne daal sëñ bi génnewu ko woon te mi woon ci biiram bi ko xaadi sànni bayit wi nag mu mel na loolu da ko dafa dafa da koo sawarloo nag mu génn le ne woon ci moom dëgg-dëgg nag <clears throat> mooy tudd gaaya ci gaaya muy tudd ca xoqal bu ka melal seeni melo nañu jëme woon ci seen borom wan gannaaw lu dul moom sëñ Bachir na ku mu neex sax man nga ne sëñ bi ñii muy tudd ci xoqa daal da koo nëbbee boppam rek waaye jëmmam la bëgg a wax ak ñi ko topp ca booba ca te mooy jamono yi mu nekkee tuubaa Touba jëkk ja te mooy jamono ay sach mille trois cent onze di mille huit cent quatre-vingt-quatorze jamono yi muy ajo ci yonent bi sallallahu alayhi wa te sëñ Bachir ne ko wax loolu nag ne da da da leen di tudd rek di ko da daa tudd gaay rek di ko nëbbee boppam mu ne comme neex waxe loolu te da sooy dëgg sëñ Bachiru ne ala anni lam aktubu an ixbaarihi iyaaya innama qara'tuhu fi tattabuci axwaalihi wa sulukihi maca muridihi saaca saacata idin suxufan munashara nee na lii may bind kat du sëñ bi ko nattali <clears throat> moo ko nattali moo ne sëñ bi nettali wu ko moom ci boppam dama ko jànge rek ci ay toftalooy xaalam moom sëñ bi ak i sóoboom ak muridam ci jamono yooyu mu bind ko muy téere yu tasaaroo dama def sama jàngat rek ci jamon tolluwaayam boobaak lamu bind dégg ca lii mën a wax nee na ana moo gën a rafet waxam ja la wax ci njaal beenug téere ba di xasida googu di xoq xasida googi di xoqal bukaa sëñ bi daf ne abki alayhim wa arju fi lbukaai gadan ridwaana man fihi gaabu bilxalaawaati nee na maa ngi jooy gaay sang yooyu nga xam ne dem nañu di nit yàlla yooyu maa ngi leen di jooy di yaakaar ci jooy gi nag ëllëg ngërëmul yàlla mi nga xam ne ca moom lañu fàddu woon ca neexit ya sëñ Bachiru ne ndax kuy jortu rek dana jortu ne loolu mu wax ne maa ngi yaakaar ci jooyu jooy kese rek ndax kenn dana xalaat ne dana ci yaakaare ngërëmul yàlla te mën a jëf lu toll ne lañu jëf ñoom mën a déedéet loolu jombante nag loolu sëñ Tuubaa dafa tudd jooy yi rek ngir <clears throat> dawalanteeg xaadima jaxate ma bindoon bayit wa ginnaaw baatu bukaa la tudd mu koy tontu moo tax mu indi jooy yooyu rek mu làmboo baat ba ndax def na ko xuqal bukaa wala saadaati namwaati tabkil araadi alayhim kas samawaati bayit woo la ko xaadi sànni mu ne jooy yooyu xaadi tudd rek moo tax mu indi baatub jooy moom it maa ngi yaakaar ci yooyu yërmande yàlla ma ngërëmul yàlla ëllëg mu ne jooye kese nag bu kenn xalaat ne jooye kese yii rek la jublu waaye jëf seeni jëf wala jëf sax lu ëpp la ñu jëf nee na sëñ la mu bind da ko bind mu jóge ci wax yu yëg boo xam dafa bàyyi ko ci xóot xóoti xolam maanaam li muy bind lu yëg-yëg dafa yëg di wax li muy wax da ko yëg lu na ci lu na ci jëmmam la mu koy wax mu koy wax di ko merala gaa yi nga xam ne day mel ne dafa mel na dafa jóge ci leer leer gu gudd goo xam ne da caa da caa jollee leer gu gudd guy law lawi day mel ne <clears throat> lii muy wax nii dafa jóge ci xóot xóoti xolam nga xam day fenk ci leer gu gudd guy law jóge ca fa ñu teg leeru yonant ga yonant ga boroom yonant goo gii di yonant bi yàlla yàlla dolli salaatu salaam ci moom ala saaxibiha salaatu wasalaam kon day mel ne lii muy wax daal dafa jóge ci leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bachiru ne kenn ci bindkatam nee na ma te mooy Xamsatu Jaxate sëñ na ma sëñ Tubaa nee na ko ci weer wii te mooy weeru koor wi nga xam ne ci la waye xasiid ak xuqal bu kaaw gii nee na ca la jëkk a janoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom sëriñ Tubaa mu waaye nag lu mel ne bu rideau maanaam sitr rideau bu woyof noonu lañ ko mën a misaale bu woyof dox na seen diggante sëñ Bachir na nee naa dafa mel ne lii nag gis gii mu gis yonante bi te am lu dox seen diggante lu woyof ca la ak xëccu nag gu bette nag ak not ko gu bette ku xëccu ak fàddu ci yonante bi ak liggéeyal ko nag ca la juddoo nga xam ne amatul sago nag ba mu gisee loolu nag day mel na daal ca la jógee nag tàggoog sagoom ci jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bokk na ci tawfiq yàlla sunu boroom ak i yi mu defal sëriñ bi dawal ga mu dawal rido bu woyof boobu sutur sutur jooju loolu dox seen diggante lu woyof moo dox diggante ak yonente bi alayhi salaam ci njalbeenu mbir ma day mel na sunu boroom da koo defal ngir lan ngir bëgg gëm bëgg yonente bi gën tar gën a tar bëgg gaag cofeel ga gën a tar nag ngir lamu janoon mooy ndax kay kay jëf ci kawuk cofeel rek gannaaw bu janoog la mu sopp ca la wut ga di gën a tar nga xam ne mën naa alko mën naa mën naa ñàkk bakkanam ca la muy wut ndax duutu ca am duutu ca am sago bokkut teg rek koo xam ne day wut te jano wut ak la muy wut xamako num deme donte am na yaqin waaye aynul yaqin nag loo teg sa bët moo féete kaw nag yàlla mu la yaqin loo xam-xam-xamu yaqin dong kon janoo gi mu janoo bi am lu dox seen diggante dafa gën a sëriñ bi nag mu gën a mu gën a jëm ci moom sëñ Basiru ne ku ñu wax xaasimul jaraxi nee na ni ko borom risaala nettalee nga xam ne tënk ba rek mooy am na waa joo xam ne da daa wax ci ñaanam genn ñaan rek la daa ñaan ne yow sama yàlla yow sama borom maana fajal nga ñëpp seen aajo te man fajoo sama aajo loolu rek la daa ñaane benn waay boo xam ne loolu rek la daa ñaane. nee ñu laaj ko bis nag lu tax mu gàttañ lu ci ñaan gi du ca dolli dara mu ne man dama génn génnoon ànd ak juróom-benn sama juróom-benn moroom ñuy dem ci dëkk yu yu bokkut ngir jixeet jaay sunu bakkan sunu boroom jixeet ci yoonu yàlla maanaam ngir yëkkati kàddu yàlla gi te muy islaam diinay tawxiid nee juróom benn yëpp faatu ci jihaad ji juróom benn ñama àndaloon nee na amul kenn koo xam ne faatu faatu na ci ñoom lu dul danaa gis rek benn jibéer maanaam ku mel ne ku bokk ci xurul ay jigéen ju rafet wàcce jóge ci asamaan si yor lu mel na ab sarbet boo xam ne bu ruux ga génnee rek ca la koy ca la koy ëmb nee na ma gis ñu ubbi bunt asamaan yëpp ma janoog ñoom nee na waa ji mm, soxna si wàcc jël roogi ëmb ko ci lu mel ne sarbet yéeg ak moom ci kaw nee na juróom benn ñëpp ku ci faatu rek janoo naag loolu waaye man maa mucc nee na man nag loolu moo tax ma am lu ma metti lool ci loolu ma faat racimul jarax yi ne man de li ma gis mooy waa ji moo gën juróom benn yooyu ñoom ñëpp moo ci gën maanaam ndax li tax moom mooy moo leen di gën gën a li li mu gis loolu da koy soññ ñoom ba ñuy faatu giseguñ loola moom mi xas gis lii nag moo leen di gën a kawe yitte léegi ngir cofeel gi mi am gan seen gannaaw nee na ko dogu ci sàkku dara saa bu demee ba janoog loola ba jege ko kiiraay li woyof dox digganteem ak loola kenn du la mën a misaal mbiram ca cofeel ga muy am ak sàkku ga muy sàkk loola gar gam cay gar bakkanam lépp looy sàkku janoo ko résultat ba mu wóor na lii nga cay amee mi ngi nii yitte ya nga cay def da bokk ak boo gisagul loola loolu lay misaale sëñ Tuubaa ba mu dajeeg yonente bi kon moo tax mu ne kon njaal benn tawfiq sunu sëriñ rek mooy soññ gi ko boroomam soññ ci ñeewante gii sew-sew bi mu ko defal ci wan ko yonente bi waaye am lu dox digganteem ak moom loolu tawfiq la ci sëñ Tuubaa ndax dana yokk yitteem doonte yitteem musta ñàkk a kawe te loolu sax mujj si kat ndax diir bu gàtt rek dañ ko yëkkatal xijaab mu daal di jonjog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ak lu gaaw gaaw la sunu borom jaxase koog moom jaxase koog leeram gu sell ga ci tëbiin wu wu tumuranke boo xam dafa jugu jóge ci mbir mu tumuranke maanaam sëriñ bi jamono yi mu gis yonent bi am lu dox seen diggante mu ne diir bu gàtt gàtt rek suñu borom dindil ko kiiraay loolu mu jonjag yonent bi mu ne lu jafe la nag loolu daanaka diggante xefe xeppi kiiraay diggante bu gàtt gàtt la mu daal di jonjog moom kiiraay la dañ dara doxatul digganteem a doxatul digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu mbir mu jafe la waaye wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasha foofu la tëje wax jooju yàlla nag yërmandeem da koo jagleel ku ko sopp loolu la defal jagle googu la defal Sëriñ Tuubaa sëñ Bachiru ne sëñ sëñ bi jëfee na werdi yi waaye gannaaw bu jëlee jëlee ci yonent bi nag ba yonent bi nekk sëriñam moom aaja wóotut ndax loo xam ne danga cay jaara ngir àgg ca kee boo xasee àgg ca kooka soxlaatoo loola soxlaatoo mu ne euh, ne lu jiitu mu jàpp ci yonante bi bàyyi woon na werdu xaadir mu ne ndax yow da nga wax ne ci da nga wax ne ci njaal beenu gu yeewoom rek ca la wirdu xaadir la jëkk a jël gannaaw bàyyi na ko jël tiijaan jël wirdu saadali wirdu tijaan wirdu saadali mu ne kon faaw rek xam naa da caa delluwaat da ko bàyyi ab diggante gannaaw mu delluwaat ca ndax taarixum ñaari xasida yi xasida gii mu doon jaayante ak cheikh abdul qadir jilaani ak xasida gii mu jaayante ak yonent bi moom seen diggante ginnaaw waxoon na ne jëfe na weeru du tijaan lu mat juróom-ñetti at weeru chadariya lu jege loolu kon day mel na ñaari wax yi dañuy dàqonte kon li wér mooy gannaaw bàyyee xaadariya ba ñëw ci tijaaniya ak bàyyi waat na leen ba mu jëlee ci yonent bi dafa delluwaat ci xaadariya loolu lay nuru daf caa delluwaat gannaaw bi nag mu jaayante ak yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee jël ga mu jëloon wirdu xaadir moom jëlu gu roy la jëlu roy waaye jël ga mu jël yeneen ya nag jëlu ku seet la ku am tegtam moom dafa amoon sëriñ di soog a jóg jël ko cib sëriñ lu ko sëriñ ba digal mu def ko lu ko tere mu bàyyi ko yi ci des nag boobu dem na ba yow da leen ne jëlal boppam ci coobareem kon ñaari ñaari ñaari yooyu duñu bokk kon xaak bi ñu tënk ko fii jox leen daje ci di ci topp incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.